bi ama nuyu naa la waaw jàmbaar ñu ngi lay fay bu baax waaw ñu am jàmm bu baax lu la indi ñëw nu ngeen ko waajale <laughs> ama seen a ngi noonu ndaysaan ama seen a ngi noonu ndaysaan sëtu Samba Xoyaan baa ngi noonu ndaysaan wane na ni làmb des ay xale topp sa ginnaaw di bëre si nga ànd ak ñoom dooleel leen ama seen tey dañoo gis bis bi fi mu la toll ndax bu ñu nee caatu Casa day bëre tey nga déplacé wu ñëw ànd ak moom soutenir ko wane ni combat bi bis du tuut borom lay tolloo loolu lan la. non sama doom sama doomu nijaay la waa deret la waaw sama doomu nijaay la quoi waaw tey bisam soo bis la waaw papa nekk fi maman fi nekk foo mu teew. nan ngeen ko waajalee. waajal ko nii ñu préparé sama combat rek parce que ñu ma préparé rek ko préparé waaw loolu ci nan la mun a gagné combat bi tey. non bëre ci lépp ah. pare nañ daal xeex day ñaan yàlla rek. xeex non day ñaan yàlla suñu borom may rek incha allah. yow foo toll ama seet gars yi seet <laughs> du ma dara. déedéet surtout sax moo xëyaat bi ma Sène combat yi foo ci toll. waaw non ñu ngi waaj a nag nag mu lay contacter. mu nga ne ma jëlal sama numéro. bu doon tournoi champion d'Afrique. ndeysaan a ngi noonu. nañu ko bàyyi mu saafonte def la mu a def ñëwaat.